ay tali waaye tamit ay piste dana tax daal ba gox yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir Kayoor ñu mën a suqaliku yoon wi lee saafara la ci jafe-jafe yooyu le yoon bi baaxul woon et fii boo bëggoon dem Cilmaxa parfois yor moyen de transport comme moto wala oto da ngay obligé jël piste bi yoonu suuf bi donc metti woon na trop mais pour le moment nii vraiment alhamdulilah surtout tay jii sax. yoon wilee nag ëpp na juróom-ñetti dina tax ba dem ak dikk bi yomb ci dëkk yi ci mel ni Kilmaxa diñ ak yeew ba tax na meeru Kilmaxa moom rafetlu na li ni mel. ñëw pour visiter tronçon bi nga xamante ni nekk na une vieille doléance pour cette population la parce que jaar fi dem ba cilmaxa dana toll ci huit kilomètres six cent mu nekkoon ay jafe-jafe yu am solo waaye tey ak li entrepreneur bi wax léegi ci suñu kanam ñun ñu dégg ko ci fii ak weer dina livrer chantier bi kon maa ngi wax waa population bu yeew ak waa population bu diiñ ba ci ñu dalal seen xel te xam ni ñun euh, dinañu ko topp ba livrer chantier bi ci délai yooyu. projet yi lépp nguurub Sénégal amaal ci Kayor des profondeurs dina tax ba dem ba dikk bi yomb lool waaye tamit liñ fay bay mu feeñ ba tax na koom bi mën a sukkandiku bu baax a baax. dañu financé li nga xam ni toll na ci à peu 500 millions commune de Thilmakha 500 millions yi mooy 8 virgule 6 kilomètres bi nga xam ne de piste bi nga xam ne war nañ ko def entre Thilmakha euh, Digne euh, fii ñu nekk nii. lu ëpp ci téeméeri million su suñuy koppar la ñu génnee ngir yooyu la projet jëm ci yoon boobu le ak ñaari kilomètre pavé yoo xamante ni ci biir Thilmakha lañ koy amal.